bokk yi noo ngi leen di nuyu di nuyu kilifa yi fi teew waaye di nuyu mbooleem ñi dëkk Jolof ñëpp te teew fi rawaate ñi di kilifa ci nuyu ñi fi nguur gi yebal muy préfet waaye sëñ Cheikh Thioro moom itam noonu la àndewoon ak sëriñ Fallou di léppam mu jàppe ko rek waaye jàppe ko itam ak jox ko cër bu rëy fa tabaarakallaahu bi yàlla dogalee bërëb bii ñu di ko gëstu ni ko waxee léegi ba mu feeñ ba ñu xam ko am nañu fi jiitu woon waaye sëriñ fàllu ne seex coro moom la jox bërëb bi lam ci jublu mënoon naa jël doomam jox ko ko waaye mu wóor ko ne moom fii la bokk fii la dëkk te cër bi moo ko war a yor mu jox ko ko bee la doglee mu jóge fi sañ Cheikh Jorel nekk fi am taxawaay bu rafet ak doxin wu rafet woo xam ne ñun ñëpp rafetlu nañu ko fa tabaarakallaahu jolof gépp rafetlu ko dara du xew ci jolof te bàyyiwul lu mu jàppoon ñëw fekk si ko moo xam lu mu sori sori day bàyyi lu mu jàppoon nekk bërki dem rek bi may wax màggal gi ci lu mel noonu la mbokk mu gaañu ñu daje ca armeele mu né ma day le 10 lamba lamba la mu doon ku nu bëgg itam ku nu yittel ku ñu ñox nu itam nu bëgg ko lool te yittel ko lool ndax li ñu ko denk suñu sañoon nu mu réussir rek mu gëna réussir ndax yàlla doonoo boole ak bok nuy fii rek lan dëkk sori soriwun dara fi ci sagata kep la sama mam nekkoon doon koo xam ne ci njëkk gëm sëriñ Touba ci la bokkoon bi ñu yóbboo sëriñ bi ceeyeen mu nek fi buur ba jolof di téré ku dem séti ko daf ne ko man de damay séti ahmed Bamba dem séti ko ci yeen djeblu ci mom di fa dem guddi gu nek mu di dem ba ba ba buur ba jolof tëkku ko ba mu wax nag mom ay kaddu do ko fe baye dem gàddaay kaddu yam ko wax nag mom moy bu kenn doon warmal kenn da nga warma warmal ndax li la indi aduna ci la muy lu rëy ku ko wax buur buur na la mën a fexeel ba mu ko defee nag mu daal ne njaboot gi nañ dem seet sëñ Touba fekk booba jóge na ci yéen dem jaareem mu jaar ci yoon ba tolloo kàdd ne leen day képp koo xam ne kii da nga dellusiwaat Jolof booy bo nga waññi man gàddaay naa tey maa ngi dem ci sëñ Touba te du ma koo teeg moom ba ma fi jóge foofa la nekk mu boole ko sëñ Mor Jaara sëñ Mor Jaara boole ko sëñ sëñ gannaaw boole ko sëñ Masamba ba mu sanc keera ba nekk fa ba faatoo fa nga xam ne ñaari at 1900 1927 da sëñ bi jóge moom 1925 la gane at la gaañu sëñ Tuubaa taxawu ko joxe ndigal ci moom kon loolu mooy histoire bi nga xam ne moom moonu boole fii ci Jolof loolu tax na ni nu yéenee sëriñ Cheikh réussite bu wér ci liggéey bi képp koo xam ne kii sëriñ sàmm nga yaakaar fii nee naa la na nga fexe ba am kër Mbàkke baari bu ñu fi wootee na nga ñëw wis lu ñu fiy def na nga ca bokk taxawaay yooyu defe naa kenn umpul kenn umpul sëñ Cheikh joreel moom mi nga xam ne moom moom lañ ko defal du toog ci benn jataay te waxu ko du toog ci benn jataay te fàttaliwu ko loolu doon loo xam ñu ngi fii ci biir jataay bi ñu ngi fii ñoom ñëpp kon fa tabaarakallaahu cër boobu moo boole sëriñ Masamba ci dëkk bi gannaaw bu loolu wee nuy sant nag kilifa yi nga xam ne ñoo fi nekk ndax sëñ Cheikh Jorel di mu war a taxawe taxawe na ko waaye waa Ngeet ñu ngi fi waa Medina ñu ngi fi ñoom ñépp di ay jullit di ay bokk yoo xam ne noo bokk lépp ñoo bokk lislaam ñoo am taxawaay yu rafet dara du xewte boo xoolee doo leen fa gis oto wa tabarakallahu ñoo ñu ngi leen sant bu baax leen gërëm bu baax di sant itam nag njabootu sëñ Seex Jorel ndax yàlla dogal na mu wuute waaye li mu wuute bànneex rek la fa tabaarakallaahu ma nga foo xam ne fii mën na faa ñaanal mu am njariñ waaye ñun noonu ci bis boo xam ne mën nañ ko fee ñaanal mu am njariñ ma bëggoon ñu def faatiha ak juróom-ñaari inaa ansalnaa eh, inaa ansalnaahu ñaan yàlla mission ba muy doxi mat sëkk dara bañ cee manqué te mu siwaat fekk fii njaboot gi dara bañ leen a jot. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa sëriñ Mouhamadou Mamoun yow mi nga xam yaay kilifa jotaay bi ñi ngi lay xiar bu baaxa baax te di la jox sa way nuyu sëriñ Cheikh mom moom sëriñ al Diouldé mo nga xam mo tok ci jotaay di jité comme ni nga ko waxee woon di jël kaddu gi di ko tek ci loxom mu taxal nako ci loxo suñu bokk yi nga xam ne ñoo bokk lislaam te ne fii ci Jolof ñu ngi sant ñëpp sëriñ Rumaam euh, sëriñ Fallilu moo toog jataayu sëriñ Cheikh Joreel lañu wax fii waaye sëriñ Cheikh jot naa ko ci ngoon sant na gërëme na tàmbali na ko nag ci ki nga xam ne moo fi toogal Cheikhul Xadim yable na fi dëkk nañu ki nga xam ne mooy sëriñam sëriñ Abo tam dikk nal boppam kon sëriñ Mamoud Mamoud soo demee nga ne sëriñ Cheikh nee na fam ne woon du fa jóg fam jàppoon du ko baax nee na sant na bu baax la cay dolliku nag mooy bokk yi deret bokki dëkkandoo sëriñ Cheikh sant na nun nag noo fekkee te dañ cee bokk dara ump sant nañ bu baax a baax màggal gi nag dafa mel dafa gën a xumbu met euh, sab xarit nekku fi waaye kem àndal wan na ko ne bu fi nekkul tam du teemu dox moom muy sëñ Tuubaa mi mu àndal sëriñ Cheikh nekku fi waaye ànd kenn ku yaakaar ku dul sëñ Tuubaa amul sëñ Tuubaa la àndal moo tax nekku fi waaye gis nga yëpp demee kon ajut ajut ci ajut ci soxlaam kenn ku dul sëñ Tuubaa waaye yàlla boole nag moom nag préfet si nga jaarab ak gone wax nañu ko man la set la jóge Espagne 2 heures du matin la egsi Dakar def fa ñaari fan ñew fi dembu ci suba la egsi 5 heures du matin la egsi seigne Cheikh ni ma mëno ñank bañ dik lu nu séq la waxu baxu jaamur nak du jàq ci baxu kenn dara waye xalé bu bax la ku bayam gërem la luma ma fi nak seigne fallo ko mom waye ki fi seigne fallu tegoon seigne fallu dongu la kon yalla nañu yalla jappalé kontan nañu bég nañu suñu xel dal na waaye bëgg nañ nag ku dimbali ci dëkk bi ndax lu ngeen ne rek ma nga ca sëñ Cheikh muy bok ñi di ñëw fi te yalla indi leen suñu bok ci réew mi seen mbokka waye nit ki nak boko ko jappalé dang da nga koy jàppale ci limam bari na lu ñuy bëgg def ci dëkk bi te mënuñu ko def te sëñ Cheikh do leen ko wax waye luñu nek nak nag Cheikh dana ci japp ci saayir nag ak ci baatin lu ma fa xam nan ko jàppale ci saayir si nag moom lañ soxla waaye sa baatin bi moom sëñ Tuubaa yi moo na ko yoral waaye saayir si nag nañ ci wax se travaux bii rek ba mu ubbeeg léegi amagul ndox te travaux yaa ngi fu ne ngi am ndox lamp yi tam nan ko yokk tali bi na egg si fii ma ci moom war war war pencum sëñ Tuubaa mi te loolu man ngeen ko sëñ Cheikh nag diisu leen ko moom sëñ Tuubaa la ko diis te dana ko def waaye nag ginnaaw da ngeen feenee yor li ngeen yor te li ngeen yor kenn moomu ko te ci lañ bokk jox leen ci suñu wàll ñu ngi gërëm ñëpp tey sant ñëpp wa salaamaaleykum wa rahmatulah. dañ daa wax naan bu nee na taw mu taw bu nee du taw du taw loolu nag am na kilifa gu baax goo xam ne damaa wax ne ma inna lillahi ibadan ida araadu araada yàlla am na ñooñ luñ bëgg mu ànd ci. ñooñu nag ca la Cheikh Mahamadul Fadil bokk kon nag Mbacke nawet bi toll na koo xam ne gàncax gi soxla na ndox lool jur gi sonn nañ lool te itam nawet bu fomm ci am réew moom catastrophe bu rëy la moom waaw loolu moom moom bu ko kenn seetaan kon nag Cheikh Mahamadul Mamoun Serigne Cheikh Oumy ah li li ñuy wax naan tàggi bu ne am na jàppal bàyyil waaye yéen moom tey maanaam dañuy man maay nekk avocat taalibe yi tey waaw waaw sëñ Moodu ñëwoon na fii aw yoon ñu tenc tencal ko ne ko jolof gépp maanaam dañoo maral tool yaa ngi yàqu waaye bañ sësee ba sës ba sëñ Moodu yëngutoo <laughs> dara feeñ na yëggut moom ci année année yi jar rek 2005 xaw ma 2006 Cheikh Mouhamad Lamine Baara fii la toogoon moom waaw gaa ñi toñ ci ko toñ toñcal mu métti mu mujj jàng ne kon lu waaye bañ mu tooy na ko fat fa la ñu ndox ma fekk kon nag responsabilité boobu moom tey ji ñun ñu ngi leen koy yanaat xam naa ne sax man ngeen ko man ngeen ko ndax ka ko daa def mooy yàlla te da ko daa jaarale ci ab jaamam bu mu gërëm mu Cheikh Mouhamadul Fadil kon nag ñaan leen yelbu leen na ndox mi wàcc na nawet bi teel ah na jur gi maanaam noddantiku ndax làpp nañ nawet bi fa mu ci am réew ñu jub ay élection loolu kenn xamul lu mu doon kon na réew mi suqaliku nawet bi eh, teraanga ji yaatu lu waaye bëgg nga am ko ndax jàmm la ñuy ci réew mi te ku sa poos diis yu bari mën nga caa bañ a dugg kon nag ñaan leen yàlla moo moom am ndoxam waaye am na ay soppeem am na ay xaritam Cheikh Mouhamadul Fadil soppeem yàlla la te ku jaar ci sopp yàlla wut yàlla da nga am yàlla loolu daal maa ko doon wax di ci turu taalibe ak turu jullit ñëpp loolu lañuy ñuy tëjale suñuy kàddu di sant bu baax di leen gërëm. la muy nuyu sama doomi sëriñ tëdd yi fi nekk sëriñ sëriñ jiili di nuyu suñu mag ju baax ji di suñu xarit bi suñu lépp sëriñ Cheikh ak mbokk yi fi teew yëpp góor ak jigéen mag ak ndaw di nuyu mbokk yi fi teew yëpp ak fi mën a jóge di nuyu monsieur le préfet te def naa ne bu ko tuddee rek tudd nañu autorité yëpp ak démembrement état bi tudd commune yi fi tudd yëpp suñu nuyoo sama xarit bu baax bee sëriñ euh, Samb Bouchra Samb Eh, ci kàddu yoo xam ne ñu ci jiw danaa jiw conférence yi ak yi wax yëpp ak sëriñ imam mi modérateur bi wax rafet na lool ma rocc ko bu yàgg waaye wax yi dafa am solo ba sëñu ma ko <laughs> bu ko defee rek ñu sant ñëpp kàddu yi rafet na ba noppi alhamdulilah rafet na ba noppi matériel la ñu jëf kàddu yëpp moo xam mm. le maire de mm. Thiamène Fass la mm. le préfet ak sëriñ Mbacke sëriñ Ndiaye Mbacke Bari mm-hmm. ak monsieur le préfet ak sëriñ Cheikh ak ñi fi wax ñëpp rek sëriñ Cheikh ummi ci kàddu yi léegi ak maître Ka mm-hmm. PCA lañ koy waxee port autonome de Dakar na macha euh, sant la kàddu yi gërëm la bis bi day bis bu rëy nag ko waxee rek mm-hmm. idée yu bari génn na fi yu am solo yoo xam ne bu ñu ko concrétiser dana mën a dàqal lu bare bare wax nañ fi ne nañ ko bokk ci calendrier républicain bi wax nañ fi ne nañ ko boole ci cité religieuse yi ñuy développé wax nañ fi ne nañ Euh, def nañ ci ba wax fi marche boo fii jëm Touba ci màggalu Touba muy idée forte yoo xam ne bu ñu koy appliqué woon mën naa indi lu bare bare te màggal ngeen ko waxee dafa am solo mooy mooy mooy seexu màggalu Touba ndax benn dat bee Touba dañ ko jàpp ci weeru biir weeru islam dañuy wax weeru wolof te du weeru wolof sax weeru islam la weeru hijri muy 18 safar bii ñu jàpp ci weeru Touba kon ba ngay wax ne bee dañ ko jàpp ci weeru Sayyidna Isa bii Seydina Isa bee ñu jàpp ko ci weeru Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye benn bis bee dëgg la kon taxawaayu màggalu Tuubaa la bis mm, mm. boo xam nag Sëriñ Tuubaa nee na mm. la ko am ko bis ba ta fonk la kon ngeen ko wax itam du bisu islam seen murid yi rek du bisu jolof rek du bisu jullit yi rek bisu àdduna sëpp la wax bisu victoire ko tuddee jour de triomphe ngi euh, ne rek Kep kot dong dongo mhm. tubaab yi musa a coppati mhm. ci histoire coloniale bépp mhm. mo xam histoire coloniale espagnole la mo xam portugaise la mo xam française la mo xam anglaise coppati ko ne ko dañ ko sàngi mu mu dem dellu si di dund di dund mu yokk ci ne soofut amatul liggéey ñu yokk ci ne bàyyiwut lam doon wax waaw dëgg la dëgg na waar mos a coppati yóbbu rek boo dellu si mbaa waxatuñu say wax mbaa da nga bàyyi wax ay res indi dugal ci kees ni la indi la si dund sooxoo amub liggéey bàyyi wala nga wax suñ fa rek commencé wallaay dëgg la dëgg la kon kooku kenn du moom hmm. tudd fi fii ndeysaan kan kan la ci suñ Cheikh Gaawaan ndeysaan suñ Cheikh Coro jërëjëf ah, loolu waaw ديسان بسم الله ñu téwlu sëñ bi sëñ mom sëñ mohammed mamoud mom sëñ fallu bismillah dañ ci santat yàlla bu baax rek xam ne lii moo tam luy dëgg na dalal xel la waaw wane ne li fi nekkoon dañu nekk ba léegi rek ndax sëriñ doomi sëñ Cheikh Thioro bu defé ni waaw xamoon démb du la def dëgg la waaw am na ko ma ci nett li xis bu xorom ci am ci sama mom ci dëkk yi am géej ñu am ba dëkk gàttal rek muy seetaan géej bu di xool géej bu mu yàgg muy muy naw sëñ Fallou ci ci duus yi mm. jàpp na ne moom lu mu gis sëñ Fallou ñu mm. ay sama duus yi jóge sama sëriñ fi mu bokk waaw ah, ndeysaan fi mu juddoo ak fi mu yaroo waaye teew dan doon doxe ndeysaan loolu royukaay ndeysaan dëgg am nañ ca xam suñu Cheikh Thioro suñu Cheikh Diorel mii mm. yàlla dafa dogal sax li fi nekkul tax mu jël kàddu waaye bu ma sax nekk doo jël kàddu ndax damaa sori ci moom dañoo jaxasoo lu mm-hmm. bare mm-hmm. mm-hmm. daanaka li wala wolof di wax ñoo ko defandoo jaxasoo ci bare bare bare bu baax bu rek wax ngeen ko yëpp ñëpp ci dellu si eh, waaye rek lii dañ ci sant yàlla ndax fam nekk mottali diine moo ko fa tax a dem te it ñun ñëpp dafa demal kon loolu dañ ciy sant di ci bëgg tey ñaan li ko sëñ bi ñaan rek sëñ Cheikh dafa fay ñaan lépp yàlla yàlla nangu mu jëlu seeg jàmm te fekkaat ñu seeg jàmm ci barke sant ñëpp di gërëm ñëpp nag tey xam ne tey fàttali rek ne mm-hmm. lii waraloon sëñ bi sant fii mm-hmm. wax na ko mm-hmm. waxtaankat wax nañ ko nee li tax fii wàccuwaayu Touba ak Darou mooy bi ko sëñ bi sant ñëwutoon ngir dekkal gentu maamam dafoo ñëwoon ngir jaamu si yàlla ak wéetal yàlla ak itam nak bëgg jël ci liggéey boo xam ne mënutoon a am te génn tuba mm-hmm. xam nga ci sori historien yi ngi may dégg mm-hmm. ba mu xamee ne def na xar wa dara ko bi ngeen xam mm-hmm. ba yàlla wax woon ko liggéey ak fi mu war a jaar fépp waaye am na natt bu ci gàll natt boobee nag yàlla xamaloon ko ne mënu koo def te génn tuba ndax ñaari mbir tuba ñaan na ko ba yàlla aar ko dégg ngeen ko ba tey am na nijaayam fi nekk sëñ bu sóobi natt bu jëm si ci moom dana ñaan yàlla wër ak ñëw te liggéey bi mënta am te natt am ba nag il fallait mu génn dem foo xam ne day sori tuba mais fii la taxam noonu naa tànn fu ko nekk ci Sénégal mais lu tax mu tànn fii da ngay xam ne ci dara ni ni ko suñu cheikh waxee rek kon ñuy gën a dénk dëkk bi réew mi di ko gën a dénk taalibe yi am na ko wax tam ne taalibe yi ñoo ci war a njëkk a jàpp waaye état bi aussi na jàpp li ngeen di wax daal comme émergence dafa xew nañ fexe ba Mbàkke Bari nekk une cité émergente waaw ndax may yayoo na ko ndax patrimoine la bokk ci réew mi kon nañ koy nañ ko bàyyi xel loola te bàyyi xel li taxoon sëñ yàlla ak liggéeyal yàlla ak liggéeyal ndax sëñ Tuubaa mu radiyallaahu xam li ko ñor rek mooy lenn sëñ Bachir Mbacke tënk na ko ci sëriñ bi ay meloom ak ak ak jubam ak ak dëggoom ak xam-xam ak ak lewetam ak ak jaamu yàlla ba mu yàgg mu ne sëñ bi daal li wér buñ ko bëree tënk te wax ko mooy li ko ñor mooy jaamu yàlla fa huwa wal xaq yuqaal laysa li shay'in xaqun fiihi illa al ibaad li ko kon ñun ñu ñu tuddoo di ko tudd moo xam dañ cee bokk ko sopp wala fu ñu mën di bokk ndax sëñ Tuubaa mm. sëñ Tuubaa sëriñ Tuubaa sëriñ ñëpp kon ku bëgg lu baax ku nekk rek ku bëgg leen nag kooku bokk taxaw koo jóg waaye ku bëgg lu baax ku ne ak foo ko jógee rek ñu tug sëñ Tuubaa kon war ngay def jaamu yàlla nga ci def loo mën ak loo moom la yàlla nangu bon indi lii lépp ida ma talaw na aaya fusna bi maxtafa ala gayrina min sirrihil jaalibat aaya bu ma jàng rek naa ci digg secret boo xam ne kenn ku dul mën doo ko xam keneen ku dul mën nag ñëpp ci kon diggante mag borom jaamu yàlla la koy def diggante mag yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu koy liggéeyee liggéey boo xam ne kenn mësu ko liggéey te kenn dootu ko liggéey moo tax mu tudde boppam abdullahi wa xadimu rasul wax ne nag jaamu yàlla bëggoon liggéey ko liggéey fi nag képp ku jort de da nga ko liggéey liggéey bu ne mel bu ne mel dàq naa si njort hmm. man zanna annahu yakunu abada yurdihi billati ka xidmati bada hmm. nafaytu zannahu bi anni alxadim bi ma wana an mislihi kullu la xadim <laughs> kenn mës koo liggéey te kenn daf ko liggéey hmm, kon liggéey tamit yàlla dafay jaam jaamu kenn mësta jaam ndax yàlla ko nangul diggante ma yonent bi sallallahu alayhi da koy liggéey liggéeyal boo xam ne kenn du ko kenn musu ko liggéey te kenn du ko liggéeyal dëgg la diggante mag jaam yi da mm-hmm. fa durr wala wala nafon ja waaw ah, ndeysaan dëgg la nafon max mm-hmm. te bindeef yi du jullit yi rek mm-hmm. du taalibeem du ay mbokkam du waa Sénégal du waa Afrique du monde noir bindeef yi bindeef yi ci yéeg jën yi ci géej yéeg ñëpp ci lañ